bu ñeel Ousmane Sonko ñoom ñëpp dañu leen muté yóbbu leen fi nga xamante ne moom moo di Tambacounda bokk na ci le juge Maham Diallo ki nga xamante ne moo di Abdou Karim Diop euh, procureur mais également Mamadou Seck ñu muté leen yóbbu leen foofee ca Tambacounda ban lecture ngay am euh, ci conseil supérieur de la magistrature bi ak chamboulement bi ci am. d'abord conseil supérieur de la magistrature <clears throat> li ñu war a njëkk édifier d'abord mooy la position du président de la république Bassirou Diomaye Faye moom et son xam ne. sur tout les plateaux, partout, ils ont crié, sur tous les toits du monde, que ne le président de la République et son ministre de la Justice amuñu droit ak sañ-sañ di siéger ci conseil supérieur de la magistrature parce que ñoom ñu bokk ci bokk na ci note justice bi bokk na ci liy xañ justice bi indépendance am donc tey balaa may wax ci wàllu nomination quelle est la position du président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre et que ñu édifier ñu parce que biñ ko ko laajee dafa ne biñ defee seen rencontre yi judiciaire yi dafa wax ne du ma ci génn comme duma ci toog ndax ma toog ci amono ma du sama objectif ma génn ci aussi du ma ñi dara mu nekk nii wii nii non bu président Macky Sall mu nekkat aussi wax waxeet bi nga xam ne suñu président yi taamu nañ ko donc tey il est temps qu'on revienne euh, la vraie culture politique bi tax ñuy wax un homme politique mais pas un politique pas un politicien un homme politique c'est quelqu'un qui aspire un politicien c'est quelqu'un qui aspire à diriger quelqu'un qui donne sa vision de la chose quelqu'un qui demande la voix jox leen ma dénk leen ma di nga wax loolu nag pour ñu dénk la suñu la dénkee nag da ngay gën ci homme politicien bi dugg ci homme politique mm-hmm. l'homme politique c'est quelqu'un qui doit gérer la cité mm -hmm. maintenant Bassirou Diomaye Faye la cité il gère la justice à travers son ministre de la justice donc là-bas il a pas de liberté de la justice mu génn ci respecter ay engagement am ak ay proposition ak ay promesse ñu njëkkoon nekk la première règle des règles de l'art mhm. puisque nag instant il n'est pas encore édifié parce que nee na am na ay magistrats yoo xam ne d' accord nañu am yoo xam ne d' accorduñu mhm. et on a tantôt on se tantôt UMS euh, union des magistrats du Sénégal c' est mhm. une association mhm. association la rek comme association pour la révélation de la paix bi ma bokk comme association nawetaan bi football association la même si c' des juristes c' est des avocats c' des hommes de droit qui ont créé leur association UMS boobu dafa am benn division bu ci am ñii am nañu si ànd pour président Bassirou Diomaye fay génn ci conseil supérieur bi ñii d'accorduñ ci et je crois que pour trancher et que pour Sénégalais yi seen xel daal le respect de la parole donnée loolu moo imposé wu ci président Bassirou Diomaye fay parce que dañu wax ne nag promesse boo gis. Mm. bor la bor la. Mm-hmm. bor nag boo ko amee nit da ko koy fay. loolu leen dal ak marchand ambulant yi dañoo amal marchand ambulant bor mooy président ma Sall moo tax ngeen torox moo tax mun leen am kër mun leen am oto su mu da ngeen a nangam ak nangam suñu faloo danañ def lu tuut ba ngeen am li ngeen bëgg parce que yomb na fi am na fi bunt baa ngi fi mais tey jii bor boobu dañ ko war a fay te Bassirou Diomaye Faye dafa war a fay bor bi mu amal Sénégalais mooy mu gën ci conseil de la magistrature suprême génn aussi. génn ci ministre de la justice am parce que Amadou Amba loolu soxna si dañu le président de la république nomme le premier ministre. Mm-hmm. le premier ministre consulte ki mu am ci moom confiance ak kóolute muy le ministre de la justice defal ko proposition jox ko président ne ko kii de la proposé président validé kon c'est le président de la république qui nomme le premier ministre qui nomme le ministre de la justice qui nomme aussi. Pourquoi il nomme le ministre de la ministre de la Justice à travers la proposition du Premier ministre. Mais aussi, il nomme directement le procureur de la République. Très bien. Kon foofu y a pas d'indépendance de justice parce que ñett ñi ma lim ñëpp président moo doon dugal ci poche ku la abal gët moo lay woon fay xool. mais juge bi toog ci table bi ki nga xamante ne moo toog di àtte. waaw di joxe décision kooku mënul am indépendance. xam nga indépendance moom dafa yaatu. moo tax moo xam. corps de boo dem fekk fa ñoo xam ne am nañu indépendance seen liberté. d'esprit benn saaku pompiteer di nga ci benn fekk bu yàqu waaye doo sànni yëpp Cheikh Ahmadou Kara Mbacké dafa tam di wax naan boo jëndee pañeb guro di ci fekk guro yu bees ak yu sànqar guro yu sànqar yi da nga koy jël dindi sànqar gi boole ko yu bees yi boole sa jaay kon juge yi indépendant ki indépendant wul yëpp ñoo bokk le ministère de la justice qui est un pouvoir qui regroupe les cours et tribunaux nommés par le président de la république duma leen ci juger kenn si ñoom mais tey gis nañu Sénégal réew mi ni muy doxee administration Sénégal dafa divisé wu ku ci ne am nga foo far nous avons une administration très partisane nous avons un ministère de la justice un pouvoir judiciaire qui est mais sur le cas sur le cas des juges yi nga xamante ne moom laa cité léegi leur non résonner suñu ay nopp durant euh, deux mille vingt ba deux mille vingt quatre le juge Maham Diallo euh, procureur Abdou Karim Diop euh, tey jii ak ki nga xamante ne moo di juge deuxième cabinet bi woon di Mamadou sekk tey jii ñooñu ñu jël leen muté leen yóbbu leen fa nga xamante ne moom moo di ca Tambacounda loolu kuñ ca daan def kuñ ko daan def da ngay jàpp ne sanction moo tax ñu yóbbu la foofu. Eh, président Macky Sall def na ko fi sanctionné ay juge toxal leen parce que ànduñu ak moom gisin donc yow ànd nga ci li gouvernement bi ma ci dama ne di alors alors alors alors alors eh, mën nga expliquer ñu mën a comprendre fi ngay waxee voilà jëm moo tax ma ne la c'est la continuité de l'injustice bi nga xam ne moom lañ doon xeex très bien jamono yi Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade mhm. Macky Sall ba ci fii ñu ne c'est la politique politicienne c'est l'esprit partisan c'est l'esprit kii bokkoon na ci ñu ma doon xeex démb dama koy isolé écarté ko. Mhm. kii bokk na ci ñu ma doon jàppale tey dama koy jox cër. parce que aussi il faut savoir aussi avoir aussi la confiance avec qui avec ce qui tu veux diriger aussi man les nomination yi nga xam ne moom la parti Pastef di def. man aw ma ci benn naqar aw ma ci lu ma siy contre. et j'ai toujours dit que suñu mënee dem jëli ki gën a ñàkk diplôme ak ki gën a ñàkk xam-xam ci Pastef formé ko. formation accélérée ci six mois jox ko mu gérer nañ ko def parce que kii gëm sa mission gëm sa vision gëm sa projet moom nga mën a àndal Abdou juuf dafa ñoo ànd ak ay nitam Abdoulaye Wade ànd ak ay nitam président Macky Sall ñoo ànd ak ay nitam ñii dañuy ànd ak seen i nit ba mu saf sàpp sur le plan politique du leen ko du ma leen ko bañal sur le plan de la des nominations du ma leen ko bañal man aw ci xel mu lëndëm. dinañ dama ne dama ne bañ koy xeex man damay toog ci plateau ne mënul nekk. Ah, dama ñoom xam nga ñoom lañ doon wax démb. Mhm. bés bu ne mu ndox ci plateau ne seen kaddu démb da leen dab. ñaata laa ko wax fii man dem nañ ba xayma ma ko. bu dee vaar kese kese kese kese bu doon vaar mooy daaneel nguur ñii seen nguur daaneel bu yàgg. bu doon vaar donc Ousmane Sonko li ko vaar barki ba avril ak léegi li ñu ko vaar moom premier premier premier opposition moom premier ennemi vaar la. mënu si dara nag mun a tëj vaar mënut a jàpp vaar mën na nag jàpp baa jaxte dugal ci kaso bi bàyyi azora faat muy dox soxlaam mun na jël imam daw dugal ci kaso bi bàyyi keneen muy dox soxlaam mun na jël waa ji saagoon magistrat bi bi ñuy waaj a jugé baa jaxate bàyyi mu ñibbi jël baa dugal mais vaar mënoo koo dugal ci kaso mën nañ jël Ahmed Suzanne Camara dont ay propos am tegg te bés bu ne Ahmed Suzanne Camara ma wax ko fii daa war a baalu àq parce que président de la république cër ak war ma ko suñu borom jox moom lañ ko war a jox c'est pour dire que l'injustice merci l'injustice mm -hmm. est tout est, est continue d'engrainer de gangréner le comportement des Sénégalais ah. moo tax ma ne la VAR moom mënoo noo a wax a wax bu yëpp bu VAR kaso donc mhm. loolu benn parenthèse la woon c'est pas ça le kii mais sur le plan de la nomination mais tey le président de la République moom moom les prérogatives à travers la constitution du Sénégal de nommer les postes civils et militaires tey bu ko neexee mu jël ku ko neex yóbbu affecté fu la neex ndem constitution may na ko boobu mais boo ko defee kenn mënu ci dara mais aussi nay fàttaliku aussi moom président moom ak euh, premier ministre Ousmane Sonko seen ñaaw te fi ñu doon bañal Macky Sall démb euh, li ñu doon xeexee Macky Sall démb ci wàllu justice bi te bu dee demee ba loolu leen ba Sénégalais di ci wut benn amalgame ak benn quoi. très bien war nañoo toogaat xoolaat seen conscience bu baax. Mm-hmm. xam ne ñu ngi war seen i kaddu te bàyyi la wax na ko.